doyen des juges d'instruction gàntal na bàyyib bi ay avocat yi Bassirou Diomaye Faye candidat ci élection présidentielle weeru février bi ñu jëm don sàkku mom Bassirou Diomaye Faye ñu bari yaakaaroon ne ba ñu valider candidature am dana génn ci kasso bi mëna campagne ni code électoral waxé rené candidat yépp dañoo wara a yem gàntal googa coalition wom amne sax ñu japp Diomaye Faye lim wara am ci élection yi dina ka am sénégalais yi ko joxoon itam loola du ñu soppi seen taxawaay ak seen gis-gis ci candidat bi Ousmane Sonko tànn lu weesu loolu ñoom jàpp nañu ni itam ba Bassirou Diomaye Faye kasob Cap Manuel gële ñu ko tëj la nar a jóge dem pale loolu nag Babacar Gaye jàpp ni mën naa bañ a demee noonu ndax moom mi bokkoon ci parti démocratique sénégalais ne woon fi ministre ne woon fi itam député am na ci beneen gis-gis dalee ko sax ci candidature Bassirou Diomaye fay ba ci bu ñu ko falee pal mu jàpp ni tekkiwul ne Bassirou Diomaye Faye dafay génn ci kaso bi mu jàngat ci njàngat mu teeree ci njiitu réew mi Macky Sall sax mën naa wéy di toog ci bopp réew mi donte Bassirou Diomaye Faye lañu fal ngoonuk ñaar fukki fan ak juróom weeru février bi ñu dëgmal laata ñu leen di dëgtal ay kàddoom yu mu yëkkati ci matinalu télé sénégal tv di sénégal matin dañu leen di ñaan ngeen émi vidéo bi te partagé ko ngir may ñeneen ñu mun ko gis bu leen fàtte it abonné te bës ci cloche bi ngir dara bañ leen a rëcc bu parrainage amuloon du ko mu neex nga ne candidat hmm? mm-hmm. parrainage bu amuloon te du ko mu neex nga ne candidat wala mm-hmm. est ce que mun nañoo nangu ñi nga xam ne ñu ngi ci lien de tension poser un candidat Dial, parce que kenn atteegu leen après ñu il faut les libérer parce qu'ils sont candidats xam nga lu muy tekki. Hmm. buñ la jàppee téye la en lien de tension. Hmm. nga dem nekk candidat. pour génn ci. <laughs> wala atteeguñ leen ñi ngi atteegoo tax ma wax. ñoom ñoom ñu def candidat. Hmm. parce que pour man loi code de procédure pénale lu mu wax. kenn mënu ko randal c'est une loi.

mooy benn. nu ngi defee campagne. ñaar hypothèse ñu né gagné na. xam nga amul fenn ci loi Sénégal fu ñu wax ne bo gagné bo nekkee prisonnier dañ lay libérer nga dem def prêter serment wala amul wala am fuñ ko bind. <laughs> muy problème bo xamné politique lay don certainement politique moo régler mais politique nak moy régler buy régler rek souvent y a des divergences yu yu métti métti ak interprétation mu dess euh, situation de bi bu dans nan Dans mel dans un environnement sous-régional déstabilisé. Il y a les pouvoirs militaires partout Niger Burkina Mali Guinée Il n'y a que le Sénégal qui échappe Mauritanie c'est un pouvoir militaire qui cède la place à un autre système il était là-dedans Mais les japonais, ils sont mais est-ce que bàyyi nañu xel ne Sénégal politiciens yi bàyyi nañu xel ne actes yi ñuy posé mun nañu dural lu ne lo xam ne kenn du ko fi ci réew mi Yalla Yalla bu mu am nak mais buñu ñu nekkee seen biir xiiroo ko ngaayo lal dal yenen réew yi mën nañu dal parce que nak ñi fi nekk tay Yalla dimbali leen ñu am doole yor doole ci la force armée dañ leen ay Sénégalais lañ comme ñëpp. Mm-hmm. j'aimerais pas que ñu leen di duggal ci ay situation politique nous avons en dehors de la situation politique donc il y a des déclarations yoo xam souvent ay politiciens ñu ngi koy def jëmale ko ci ñooñu Sénégal politiciens yi nañu bàyyi xel ne réew mi fi nous sommes dans un environnement déstabilisé on est attaqué de tout part nous avons des ressources pétrolières et gazières qui ñu war nous exploité ñu koy retardé di ko retardé di ko retardé est-ce que amul ñu am intérêt teg les ressources est-ce que a intérêt à ce que ce qui va se passer leur soit favorable de telle sorte que nous n'ayons pas ko pour que réew mi nous donc nous bàyyi xel loolu pour réew c'est ça que je veux dire c'est le message de paix que je veux lancer pour nous l'élection élection présidentielle le 25 février 2024 euh, day après le lendemain wala ci guddi gi ku toggaloon ganaar da nga ko lek ku xey le 25 da nga bu fekkee jour ouvrable da nga liggéey. liggéey loolu lañ bëgg comme ni ko daan defee an mu jot. mais ci kawu jomay est-ce que mën nañu envisager kon hypothèse bu gagné toujours euh, le conseil constitutionnel constaté euh, empêchement wam ce boobaa c'est la deuxième personnalité de l'État le président de l'Assemblée nationale qui vient amna yene kay bu yëkëti won bobu xalat mais li nga wax légui dafa mel ni luy bëgg appuyer bobu thèse xam nga loolu am na nañu ko bind. mais fi nit ñi eh, empêché c'est le président de l'assemblée qui est mm. man ama boobu théorie gawma ko. ok xamul tax ko. Mm. parce que le président de la république est installé après avoir prêté serment. c'est le tour du président de la république. d'accord. et le mandat du président de la république est cessé un exercice bu installer son successeur de 2 avril. pour moi, vous faites une hypothèse catastrophe mais le président en exercice va continuer à exercer le pouvoir. Vous mandat un mandat de successeur. d'accord président quand février 2019 2019. Euh, euh, février ko euh, février ans. Mm-hmm est-ce que le en février. dañuy xaar élection yi le deuxième tour. xam nga mu ngi ñu avril en général. tradition la rek. avant faire l'indépendance... parce que installé avant le 4 avril son successeur. mais imagine si on n'installe pas son successeur il sera obligé parce que état de vacant. vacances. Hmm. muy dem day jokalante lengue. waaw xam nga ñu ko oh. transfert de pouvoir. kon tay bu génnul prison président Macky Sall day continuer. ci sama xam-xam sama xam-xam président Macky Sall tant que installé wuñu son successeur. moy mhm. téye lengay. scénario bobu amone rew mi mom yaakaaroon dana yëngu. motax mané la nañu fexé ba luy yëng rew mi bu ko fi def. kon nañ ci jomay mu battre campagne éviter le yooyu. yow lool mooy ce choix amna na ñoo xam ne du sen choix. <laughs> yow pour yow lu gën ci sénégal moy que ne réew mi nek jam lan moy indi jam ke bu kenn baña def lu tax réew mi di yëngu hmm fof ngay yam kessé d'accord parce que duma ko xamné damay joxé tektel nan ni lañ ko redefé pour mu nek bu ëllëgé bu nekkul ñu ma ah, ya waxon nañ ko defé ni dana nekké ni dédét nañ def lu tax réew mi nek jam okay. c'est kon mu doonoon njàngatu Babacar Gaye ci kaw Bassirou Diomaye Faye mi candidat des ci kaso bi waaye itam mën a bokk ci ñi ñuy fal ci boppu réew mi te desam ci kaso gi ci xalaatu Babacar Gaye mooma mën a indi xëy na situation bu kenn xaarul woon.